savi mu taxaw jonn nopp luwul commencé waat liggéey bi ndax am na lu koy xaar Alioune Cissé mu war a joxe ablistam listam yi information yi wérte wóor Aladji Malick TV yow mi door a ñëw defal sab abonnement bu dee TikTok nga ne dabbar ñel bu dee YouTube nga tamit na tamit baax na bu fekkente ne tamit abonné goo ci La Vérité TV di surtout Aladji Malick bu bees mën nga jaar ci bu TikTok bi profil baa ngi foofu boo demee nga abone bu dee yaa ngi ci YouTube bi commentaire yi mën nga kaa jël nga daal di def sab abonnement loolee dana tax ñu mu am 1000 abonnés 1000 abonnés ni ngi leen ci xaar ndax Aladji Malick TV bii ngeen jàpp yéen ko defoon mil abonnés te fii leen jaaroon cant ak ngërëm ñeel na leen safi nee na jon na taxaw préparé li nga xam ne mooy match bi mu dëgmal ci week-end bi gone gi ngeen gis ko taxawaayam xel mu dal la àndal ak bopp bu fees dell ak i xalaat yoo xam ne fu mu mën a jaar ba li mu peek ci li nga xam ne mooy saison bi ñu nekk mu mën koo am peeg bi nag bu ngeen ko déggee dafa xamal ay gaayam ni béybatam mooy jël lii di ak lii la di Ligue des ñaari mébét yooyu ci lay liggéey su ko amul ren bëgg na ko déwén liggéey bu mucc ayib bi nga xam ne mi ngi koy doxal loole moo tax entraînement yi bu ngeen ko gisee entraînement yi day yokk cere dolli ñeex affaire yi day gën a takkarnaase gone yi gën a taxaw ñoom zilkondeeg ñoom ñëpp kenn kum ci man di am na lu xaar ci saison bi nga xam ni moom nga ne teyit safi di jàmbaar ci li nga xam ne mooy équipe boobee di Barcelone gaa ñi gis ngeen leen nanuy doxale yokk nan cere dolli ñeex ko gis image yi nga xam ni gone yi léegi forme bi ñuy commencé di respirer forme boobee dëgg la form boobee ñoo ko liggéey liggéey bi nga xam ne tamit équipe Barcelone bu jigéen ñi am nañ ko ñoo FC ah, Valence ngeen gis leen léegi match ba jeex na ngeen gis image yi juróom benn bal ah, ci dara la leen équipe boobee di Barcelone yitti fekk na booba Aliou Cissé ma ngay waaj liste boo xam ni bu muy toggaat la lijjanti ko ba mu ne cocc mën naa am ñu wees te loolee su ba ngeen koy xam bu 10h jotee fële ca VDN ba siège bi nga xam ne foofee la fédération di yëkkatee seen i kàddu loolee nag dina li ko bàyyiloo xel dana leen ci di ak li yéen lu yaatu en direct ci Aladji mal TV euh, ci boobee programme nga xam ne ma ngi koy amee fële ca Ndakaaru lépp nag dara du leen ci rek ci ab même bu jàllee danañ leen ci indi ay leeral gars yi jërë ngeen jëf ànd beeg Aladji Malick TV am na solo.